alors euh, monsieur Sy euh, Siré ñu ngi ak yow euh, déjà réew mi am na fu mu toll mooy situation bi tendre na on nous annonce des morts depuis démb ba tey après verdict gu Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci seen coow li doxoon seen diggante fi mu toll nii yow yaa ngi nekk candidat à l'élection présidentielle ban jàngat nga ci def. waaw d'abord di ko di ko naqarlu lu xew fii. ci benn journée rek ñu am euh, neuf morts ñoom ñeent faatu euh, loolu déjà maa koy euh, naqarlu bu ko naqarlu ba pare jaale famille yi masawu famille di wax ni en général communauté internationale bu ci ci dëkk pour mu ciy mën a dugg il faut que faatu yi àgg ci benn sëy en général bu ñëwee ba diggante dix ba vingt dañuy jàpp ni loolu affaire nationale la donc affaire u état bi mën na ko gérer mais su commencé jël euh, commencé jël ay euh, loolu nag organisation sous régionale yi comme muy ku mel ni ay CEDEAO dañuy jóg mais communauté internationale en en général su faatu yu commencé nekk ay cinquante personnes jëm kaw su boobaa nag communauté internationale day commencé jóg et puis commencé aussi di activer mécanisme yi yooyu quoi donc yàlla bu ñu fa àgg mm-hmm. euh, ce qui est regrettable mooy euh, li tax CEDEAO waxaguñ ci dégg man gisaguma seen communiqué mais tamit euh, dafay am benn affaire buy expliquer euh, lan moo tax euh, fi mu toll nii kilifa disons diine yi dégguñu leen am na benn début d'explication bu ko mën a expliquer xam nga ba la fay xew bi mu fi xewee deux mille vingt et un kooku Ousmane Sonko dafa jekk woon léegi sëriñu kilifa diine yi ñu ci bari Euh, suñu borom daa dogal ni ñoom dañoo am benn ci fer ak benn yëg-yëg président Macky Sall sans pour autant que président Macky Sall delloo leen loolu euh, ba tax na ba situation bi euh, melee na mu meloon deux mille vingt et